jëfati mbokku internet ñuy bàyyi xel moo xam euh, découverte moo xam web info TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi ngeen ñuy teewlu ànd wu rafet bi ngeen daan nag ñun gannaaw ba ñu dikkee euh, bi si vendredi daal di leen di wan li nga xamante ne moom mooy actualité ba fii si Grand Dakar fii si euh, Grand Dakar mu doon benn famille ba boo xamante ne nañ leen génnee euh, ñaaw na loolu sénégalais bu ne di ko waaye gannaaw loolu ñu daal di taxaw ak suñu frère di Ibrahima moom mi nga xamante ni moom moo bokk si famille bi waaye ñu bañ leen ñu bañ a fàtte waaye juróom bu jigéen moom moo bokk carrément si kër gi waaye ñu génnee ko si génnee boo xamante ne euh, vraiment ñaaw la lool lool lool Sénégal bu ne euh, yaa ngi koy ñaawlu waaye tungu ne euh, du teew ñuy nataal dañ koy daal di joxaat kàddu gi ginnaaw ba ñu jógee si vendredi jàpp samedi dimanche ba tey jii si bésu lundi naka la fanaanoo naka la dundee li nga xamante ne mooy situation bi ba ba ba lundi bii nii tey ñu daal di koy jox mu daal di nuyu ko suñu mbokk internet yu ñuy bàyyi xel web info ak découverte Ibrahima Eh, di la di la encourager di la ñaan yàlla suñu borom yàlla na la may xolum muñ kàttanal la bu baax a baax a baax maa ngi lay fay awuzubillah bismillah illa wali yàlla eh, jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di màggal ñëpp lu tax may tàmbalee foofu ndax damaa bëgg sant ak ngërëm boo xamante ni samay tëkkandoo sama waa quartier adduna bi ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm képp koo xamante ni ci bis boobu say rongoñ daanu na maa ngi la koy jégalu maa ngi koy jégalu di leen masawu coono di leen jégalu yéen ñëpp ngeen jégal ma ko maa ngi leen masawu coono bu baax a baax ndax lépp yëg nañ ko mm-hmm. jàppale bi mm-hmm. ñu ñëw ak ñëwul mm-hmm. ñu toog seen dugg ñëpp jàpp nañ ci wax dëgg yàlla maa leen sant di leen gërëm euh, gannaaw ba nga nuyoo daal di gërëm bu baax a baax dëkkandoo yi ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ seeg xarit yi Ibrahima gannaaw balaa ñuy toog ak yow nee nga xaar ma dugg daal di yeeslu maanaam daal di jàppuwaat ngir jàkkaarlook askan bi euh, yëg-yëg boobu bu nekk ci yow lan la si tey bi si dal bi balaa ñuy taataan li nga xamante ne mooy kàddu gi nga ne xaar ma dem jàpp ji ñëw ñu toog ñu waxtaan maanaam gëm-gëm boobu euh, dafa for te loolu loo xamante ne frappé na ma torop waaw gëm-gëm boobu lu ko waral mooy damay taalibe Serigne Touba di taalibe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni kooku tey dal bi ma nii mu demee moom moo ko def ci man. macha allah moo ko def ci man. macha allah jërëjëf moo ma ko may. Mm-hmm. moo tax tey lii ma dal nii. Mm-hmm. lii ma dal nii tey ak sama waajur. Mm-hmm. tey su ma demee ba am kàttan. mën ko tenir toog. gëm yàlla. grâce à moom. ndax moo ko def ci man. wax dëgg yàlla. moo ko def ci moom bu dee dëgg rek mhm. te yàlla tax mhm. loolu moo ko def ci moom macha allah moo tax ma am ko macha allah dal gi nekk ci moom mhm. maa ngi ko koy sante bu baax te ko gërëmee bu baax a baax di ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér waaw ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alors bu ñu jógee foofu Ibrahima ñu ñëw euh, ci lu mel euh, diggante àjjuma euh, jàpp samedi ba dimanche tey jii di lundi naka ngeen dundee yëf yi Ibrahima ndaxte kenn xamagul sénégalais bu ne bëgg naa xam Ibrahima naka la fanaanoo sénégalais bu ne bëgg naa xam Ibrahima ana fan la nekk maanaam di di dalloo ak njaboot gi kenn ku ne bëgg naa xam Ibrahima ana wayjuram bu jigéen suñu wayjur bu jigéen fan la nekk si yan loxo la nekk ndax jamono yu mu toll nii lëmb leer na eh, si nopp sénégalais waaye tamit ump na si bëtu sénégalais bu ne. bëgg a xam sa yaay euh, suñu yaay ji euh, fan la tëdd ndax kenn xamagul suñu yaay ji si yan si yan loxo la ne ndaxte nit ñi xam nañ situation bi nu mu demee. Mhm. loolu moom dinaa ci sawar a tontu bu baax baax mhm. ndax lu tax ma ci sawar a tontu mhm. xam nga suñu borom moo yéeme suñu borom ndeysaan. waaw dañuy sant yàlla bi ñu nekkee ay jullit ba pare mu def ñu ay taalibe sëriñ Touba mu def ñu ay soldaaru Serigne Touba teg ci. dañ koy santee ku tedd ki tey suñu waajur bi fa mu nekk daanaka ca ki mu nekk kooku day man may moom muy sama xarit di sama di sama lépp tey kooku këram laa nekk mu jënnee soxnaam dugal ma biir néegam barke Seydina Muhammad fa génnee soxnaam dugal la si biir néegam dugal ma biir néegam dama hmm? sawaay yàgg sa waajur fii ci biir néeg ba keroog ñuy am ñu ñuy defee kooku aw ma fayam. bilaay. Hmm? waaye nag dañuy sant Serigne Touba. Mhm. ndax kooku tamit. Mhm. taalibe Serigne Touba la. Mhm. moo tax Serigne Touba du seraan waayam. gis nu mu demee. ak fi dugg. kon Serigne Touba du moo tax sant nañ bu baax sant nañ bu baax sama waajoo de loolu la def. moo tax maa ngi ñaan ñëpp ñaanal ko. Mm-hmm. mu am gudd fan ak wér yaram. Mm-hmm. maa ngi koy ñaan ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. yàlla dëgëral ko. ndax kat jullit lii la mënal moroomam de. lii la ko mënal mu nekk ci tolof tolof mu ñëw taxaw ko. loolu rëy na de. rëy bis bu ko yàlla fayee. moo xam ne fay na ko. ah man de sama xol lay tooy na ci moom lool sedd na kuy kuy maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax su makaanu kooku laa nekk ak sama njaboot gannaaw sa xarit boobu mu defee jëf ju rafet loolu ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax si lu nu mel si lu mu def di ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom kàttanal dollul ko xéewal ndaxte nit bu nekkee si jafe-jafe nga daal di koy jàppale loolu def wax dëgg fa nax yàlla lu rëy la mm. yàlla suñu borom rek lay fay mm. tey jii suñu ji mi ngi fa ndax mi ngi lekk ndax mi ngi lekk ndax situation bi keroog ba ma koy mujjee gis mm. boo xoolee xar kanamam mm. daanaka mu jooy rek ko dese woon mënul sax wax tey suñu yaay mënul wax yow yaa koy waxal yow yaay tànkam yow yaay ay bëtam mënul dara loo xamante ne moom mën na koo defar boppam tey jii ndax suñu yaay ji mi ngi lekk waaw mi ngi lekk mi ngi lekk alhamdulilah ñu sant yàlla mm. waaye foofu naa ci taxaw tuuti foofu moom damay ñaan di sàkku képp ku ma ci mën jàppale ci sama waajur bii du ma ci waaye jàppale ma jël loolu moom lu ma soxal la sama njaboot gi nag yàlla baax na suñu borom dinañu magalal lépp mais sama waajur bii moom lu jiitu lépp man sama waajur bii moo ma gën a ñor wax dëgg yàlla lépp lu ma ci waaye dimbalee nag ma jël mag la tawat na wax dëgg yàlla suñu borom nag mooy tega nattu mm-hmm. ndax tey boo xoolee ba mu tëddee durant boobu ba tey mm-hmm. yàgg na mm-hmm. yàgg na de ñu ngi koy jaayante nekk moom di def lu ñu mën ak lu ñu mën mënoon moo tax nag ñu ngi ciy ñu niveau bu baax dañ ciy jàppale bu baax a baax ba mu mun faju ba mu mun a nekkaat ndax tey moom bu nekkoon non du demee nii man tey position bi ma taxaw position am la moom ndax man duma ci dara. Mm-hmm. moom moo ciy dara. Mm-hmm. ndax moom moo ci bokk. mais yow yaay ay tànkam yow fi mu yaa koy doxal léppam. loolu yàlla yaa yor lépp te loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal ci man. Mm-hmm. yàlla moo dogal loolu ci man. te dañoo war a nangu. war a nangu ndogal doomu aadama day nangu ndogal. yàlla moo dogal loolu ci man. ndax yàlla bu neexoon tey. lii yëpp du ma ko fekk. du ma fekk. ma toog di ko wax nii. bu neexoon. wala bu ko neexoon tey sama waajur boobu du fekkee lii. Mhm. waaye gis nga. Mhm. kon dogal suñu borom la moo ko dogal ñu fekkee ko nii. Mhm. mu dogal nag ma nekk tànkam nekk loxoom nekk léppam loolu yàlla suñu borom la moo tax waaw foofu daal maanaam bëgguñu si sax sori waaw ndax bëgguñu sax di waaw ndax ñu ci waxee rek suñu xol day tooy tooy wax dëgg yàlla bëggutuñ jooyloo kenn wax dëgg yàlla fu mu toll ñuy sàkku rek mooy ñaan ay ñaan rek. yëf yi waaw képp ku yor sa kurus. ku mhm. waay mën a ne. Mhm. ñu ngi sàkku ñaan di ñu ñaanal ñu yàlla yàlla def sama waajur bi li nga xamante ni moom la ko suñu diine jox mu jox ko moom tooñul kenn de tëddul si alalu kenn. dëgg yàlla te dul si alalu kenn ci alalu baayam la nekk fu mu tëdd baayam boobu nag sama maam la moo ma yar man mii man maay benn sëtam bu mu mës yar te bëri na ay sët li mu yor ci ay sët du jeex man sël la yàlla dogal moo ma yar def ci man maanaam jaarale ma fépp góor di war a jaar moo ko def ci man mook sama maam bu jigéen kon alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla fa mu tëdd yàlla xaare ko àjjana ayca mi ngi noonu gannaaw bëggoo woon sax wax euh, ci lu ni mel dañ la daal di lay ñaan rek ndaxte sénégalais bu ne euh, bëgg na xam Ibrahima euh, naka la yeewoo te dégg nañ kàddu gu am solo bi nga xamante ni Ibrahima yëkkati na ko leeral nañu si waay juróom bu jigéen bi si yan loxo la ne mais tamit leeral nañu un si situation bi nga xamante ne actuelle moom la nekk di dund waaye bañ gannaaw Ibrahima xam naa ni foofu dañ koy brosser rek ñu daal si wax astuur rek ndaxte ba ñu dugalee vidéo bi bëri na si ñi nga xamante mooy famille ba ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñoo def lu ni mel ngir ñëw daaneel kër gi ñoom nee nañ kàddu gi nga xamante ne Ibrahima yëkkati na ko du kàddu boo xamante ne kàddu kàddu bu dëgg la maanaam daal ñeneen lépp yow maanaam daal nga baal ñu lépp li nga xamante ne wax nga ko waxu jaxase la ñeneen ñoom ñoo féetee dëgg bi mais jamono yu ñu toll nii ñoom pareeguñu pour wax ak presse bi. waaw ah, amul problème comme ñoom ñoo féetee dëgg. Mm-hmm. waaw suñu borom dina leeral amul problème lu leen neex nañ wax man nekkuma fi di tontante wala di kiiwante man taluma loolu sax quoi wax dëgg yàlla taluma loolu quoi man li ma tal mooy sama waajur bii li may def ba mu nekkaat ci ci ci kiiwam ci sagoom dellu si waat ci sagoom loolu moom ëppal solo ko ñoom li ñuy wax man waxuma fi dara lu aay mhm. lépp lu ma wax témoin bàyyi nii ku ñëw fii gis mhm. xam ni li na quoi lii moo fi ne li ma wax moo nekk fii mm-hmm. kon waxuma loo xam ne amu fi mm-hmm. kon nag lu waaye wax boppam mm-hmm. lu waaye wax boppam man li ma ëppal solo mooy sama waajur bi li may def ba mu nekkaat dellu siwaat ak sagoom ba am faju bu normal loolu wax man ndaw la yàlla yàlla moo ma def responsable daf ma ko sama bopp ba pare jox ma njaboot maa ngi juróomi tur tànk te ay xale lañ dëgg yàlla dèjà gis nga école la ngi nii ubbi na mhm. xale yi ñett ñu ngi jàng ñetti élève laa yor maa jot nga leen inscrire non fu ñu nii mhm. dama leen jël mhm. sama kër goro laa leen yóbbu pour saa ñu nekk fa ba dem na école yi nga xam ne fa la ñu war a jàngee ma wax leen ko ñoom sax dèjà situation bi yëg nañ ko moo tax bi ma ñëwee rek dañ ne ma waaw ñu ma leen ñaan ñu nangul ma ko defal ma loolu mais may nañ ma fu toll nii ba fii ak àllarba man lijanti fu may nekk. bu ko defee moom moom mun leen récupérer. Mm-hmm. ñëw seen école yi commencé jàng. Mm-hmm. bu ñu daanelee foofu dañuy ñëw moom mi nga xamante ne moo njabootee Grand Dakar moom mi nga xamante ne moom mooy moom mooy dogal fii si Grand Dakar di Jean Baptiste maire de la commune de Grand Dakar ana ban taxawaay la si def diggante euh, mbir mi ba mu xewee vendredi samedi euh, dimanche ba tey ji si euh, lundi ndax moom ñëw na taxaw jàpp si yëf yi wala yónnee na benn délégation moom mi di Jean Baptiste. ah man de gisuma ko. gisoo ko waaw ah, dëgg yàlla man moom ay waxam sax moom wax dëgg yàlla bëgguma sax wax ndax wax moom. wax si ah, ah, ne en tant que suñu défenseur. Mm-hmm. bu mbir yi ni mm-hmm. ndax moom la moom moo ñu moo ñu njaboote rek. mooy suñu maire. kan kay wartee fam mm-hmm. bu deful tam a moom la rek. man ku maa ngi ku amul solo. man maa ngi ku tedd sëñ Tuubaa laa gëm moom laa yaakaar tey ëllëg mhm. ndax moom laa àndal man ku tedd ki laa moo tax kon moom ay mbiram sax garaawul amul solo amul solo bu ko neexee ñëw bu neexee bañ a ñëw solo mhm. moom moom du wax ci moom lenn quoi wax dëgg. boo boo nanguut a wax si ñoom ñun tamit duñ si mën a euh, sori mais depuis lors ana ñan ñoo ñëw daal di lay soutenir bu baax a baax ci yëf yi. mais samay mbokk samay nit waaye nit. fu ne fu ne nit ñaa ngi jóge fu ne ñii di ma ñaanal mm. damay romb ci mbedd sax wax dëgg yàlla ay nit di ma woo xamuma leen xamuñu ma may ñaanal yëg-yëg yëg-yëg mm-hmm. nañ waaye jooy moo tax moo tax ci biir wax ji tàmbali bi ma ne maa ngi jégalu ñi nga xamante ni mm-hmm. non ñu ngi toog seen duq di jooy mm-hmm. bëri na moo tax ma ne maa leen ciy jégalu bu baax moo tax ma jiital samay wax loolu ndax lu mel noonu dama dox nit woo ma wax ma loolu dama kat jooy naa ba sonn waaye muñal te xam ne yàlla ay mbiram lii la mbiru suñu borom nii la bu ko tegee danga koy nag da nga koy nangu waaw koy nangu mm-hmm. ndax ay jullit lañ mais yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. mais kan moo ko jénnee fa mu bokk mm-hmm. ay mbokk boppam ñoo ko fa jénnee fan la mujjee ak ñoom mais ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mais tamit fan la mujjee noonu la demee rek kon ñun ñi nga xam ne nag duñu duñu dara mm-hmm. ay simple doomu aadama lañ mm-hmm. wax dëgg yàlla nag mm-hmm. waruñu waruñu war nañoo mën a muñ ndax ñoom ñu ñu muñ moo gën a metti ñun lu ñuy muñ nii ñun lu ñuy muñ nii lu dara ñooñu lu ñuy muñ moo gën a metti fop ndax tar-tar boo xalaat daj nañ ko kon ñun daj ñu dara moo tax lii lu dara dañuy sant rek moom dañuy sant rek ñaan alhamdulilah fu mu toll alhamdulilah kon boo amoon kàddu booy tënk rek euh, lan lay doon. waaw tënk bi mooy li moo wax rek mooy mujjee mooy santaan ñëpp këram ñëpp sant sama mbokku taalibe yëpp sant jullit yëpp ak fu waay mën a ne ñu ngi sant ñëpp di këram ñépp te it nag lu ñu gën a bëgg tamit bokk na si mm-hmm. suñu waajur mm-hmm. li nga xamante ni moom la ko suñu borom jox mu bokk ci mu am rakk bu góor am rakk bu jigéen ñooñu yàlla dogal tamit ñu bokk ci ndax góor gi ba muy làqu quatre-vingt-dix la làqu sama tante bi njëkk a làqu 2016 la làqu sama nijaay ba ca topp 2016 la làqu euh, sama tante bi njëkk a làqu 96 la làqu sama tante sama sama nijaay bi si topp 2016 la làqu sama maam bi nga xamante ni mooy seen waajur bu jigéen moom 2015 la làqu li may ñaan daal mooy comme mbir mi mu ngi ci loxo yoon mm-hmm. li nga xamante ni mooy sunu sunu pàgguteef mm-hmm. sama waajur moom ko mm-hmm. nañ ko ko jox loolu loolu tam bokk na ci li nga xamante ni mooy dëgg ndax ñoom moomuñu moomaa ñun dañoo bokk kon nag ku bokk balaa ngay def dara war ngaa mun a wax nga bokkal ba pare doog a mun a def waaye def te waxoo amul solo man waxu ginnaaw nag du ma déranger bu la neexee nañ wax jox nañ ma lii jox nañ ma laa jox nañ ma lële wala proposé nañ ma lii proposé nañ ma laa mm-hmm. proposé nañ ma lële yëpp wax nañ ko waaye jërëjëf mm-hmm. amul solo mm-hmm. l'essentiel li ëpp solo mooy yàlla xam na ndax yàlla moo nu moo jiitu ñëpp seen xol kon xam na lépp moo tax man loolu du ma ci commentaire nañ wax lu leen neex waaye yàlla xam na ñi may dëkkal tam fii ci koñ bi xam nañ buñ moo joxee xam nañ buñ ma joxul xam nañ loolu moo tax man tam léegi bàyyi naa lépp si loxo suñu borom kese noonu la demee rek. moo tax nag léegi maa ngi sant ñëpp. di mhm. gërëm ñëpp di wax ñëpp. Mhm. lu ñu lu lu ñu ñaan du doy nañ gën a yokk ñaan yi gën a yokk ñaanal ndax ay ndaw lañ. Mhm. mbir mi dal sunu kaw àdduna bi yëpp di ko waxtaanee. kon nañ ñu ñaanal rek yàlla may ñu dëgërluwaay bu dëgër may suñu waajur bi mu am wér am tawféex. ku ma ci mën a dimbali nag te yàlla tax sama waajur bi nag ma ci dimbali man daal loolu mooy sama wax bu kii daal waaw jërëjëf waaw mi ngi noonu mbokk internet yi ñuy bàyyi xel découverte ak web info tv Euh, diisoon na lool ngir ñu daal di koy poser ay questions si lu nu mel waaye defe naa ni ñu ñoo dundandoo actualité bi yëpp depuis lors diggante vendredi samedi euh, jàpp dimanche ba tey jii si lundi bi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne moom mii di Ibrahima yëkkati na ko euh, ñu nag vraiment amuñu koppar boo xamante ni war nañ ko mën a yëkkati daal di ko koy teg si loxoom ñoo jël benn appartement daal di ko fay dugal waaye li ñu mën mooy li yàlla dogal ñuy daal di traité ay information di ko wasaare si àdduna loolu nag koy mën a defee su ko defee sénégalais bu jot li ñu mel su ko defee mu daal woo Ibrahima daal di koy sutenir bu fekkee nii kenn ku ne fi ma ko waroon a commencé mooy suñu kilifa ndaxte ñun dañoo bokk Grand Dakar te kuy dugg Grand Dakar sa xel du dem fenn su dul suñu maire di Jean-Baptiste Diouf mi maire de la commune de Grand Dakar kon tey wareef la wareef la wareef la wareef la encore une fois Jean nga daal di soo sa dàll yow mi nga xamante ne yaay suñu kilifa daal di ñëw si fami famille ba bi daal di leen di nemmeeku daal di ñëw si ba daal leen di masaw daal di ñëw si famille ba daadi xool fi nga xamante ne war nga leen fee mun a dugal nga daal di leen dugal en attendant ñuy mun a regle problème bi si foofu laay nag daal di jël daal di jox kaddu gi daal di jox benn appel si ki nga xamante ni moom mooy association grande Dakar sama yite ñoom tamit maa ngi leen di woo si yëf association Grand Dakar sama yitte maa ngi leen di woo ngeen ñoo jàppale suñu frère euh, di Ibrahima ak bépp association bi nga xamante ne moo xam bokk nga grande Dakar moo xam bokkoo grande car nga daal di ñëw soutenir euh, suñu frère euh, Ibrahima ndaxte lu muy dund boobu ba tey métti na métti na lool ba fu métti yem kon képp ki nga xamante ne yëg nga lu ñu mel nga ñëw dugal si sa loxo di woo waa Gilet Orange Sénégal aussi tamit maa ngi leen di woo les bonnes volontés Eliman Lam ah moom tamit nga xamante ne day dox si social di Elimane Lam di nit ku baax nit koo xamante ne dañ koo xam si social kon Elimane Lam ñu ngi lay ñaan boo gisee ah, suñu appel bi nga daal di ñëw dox dox si daal di ñëw fii si Grand Dakar daal di ñëw dimbali ah, suñu frère Ibrahima gannaaw mënu ñoo wax sax lu bari ndax buñ koy wax ak xol bu metti lañ koy waxee waaye lu mu si mun ti doon jëm na jéem nañoo góorgóorlu daal di traité information bi ni ñu ko waree daal di daal di leen koy jox suñu mbokk internet web info ak découverte jërë ngeen jëf Aba le vrai la woon jërë ngeen jëf